salaamaaleykum amis téléspectateurs salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo la chaîne Equivox TV tey nag ñu ngi ak ku yàlla baaxal koo xamante ni ci li muy def sunu borom may na ko ci muy Serigne Daouda Seck ñu war a waxtaan ak moom ndax ku ne eh, Serigne Daouda Seck war a waxtaane actualité bi nga xamante ni moo xew ci réew mi ku ne Serigne Daouda Seck ñu war a waxtaane li nga xamante ni ci moom lay ci loolu lay yëngatu waaye nag ñu koy dàkkantele borom soble bi loolu yëpp dinañ ñëw incha allahu rabi Serigne Daouda ñu ngi lay siyaar bismillah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman kasiran ila yawmi din ila yawmi qiyama ila yawmi baasoon ñu ngi leen di fay nuyoo di leen nuyu di nuyu képp kuy seetaan site bi di leen ñaanal yàlla site bi yàlla gën kaa yokk yaara bi di nuyu waa Yoff fii ñu nekk yëpp xalif général Baye Abdoulaye Thiaw Laye ak porte-parole Mouhamad Lamine di sant ñëpp di gërëm ñëpp uh-huh. sëñ bi bala ñoo commencé waxte ñu gis nga yor soble def ci ay puso ñu lay dàkkantele borom soble bi lan moo indi borom soble bi waaw alhamdulilah borom soble bi di liggéey la liggéey boo xam ne dañ ciy liggéey ay nit di dimbalanteek ñoom bañ dem ba gis ba ràññee ñu si ñu tuddee ñu ko nekk loo xam ne ñoo ko toog tuddee ko suñu bopp te képp ku ñu ciy dimbalante yàlla mu ngi ñu si defal résultat résultat yi bëri soble bi nag si li muy dox bari na waaw si li muy yëngatu bari na rawatina ki ñaar ñi nga xamante ni dañuy bëggante wala ki nga xamante ni njabootam dafa tasaaroo mu bëgg mu dajaloo xamante ni dafa bëgg kayit moo xam ci biir réew mi la ne wala bitim réew yooyu yëpp ñun soble bi lañ koy jaar pour liggéey ko te bañ ko commencé ba léegi yàlla mu ngi ñu ci defal tawféex looloo tax ñu tuddee ñu ko. Mhm. Euh, yaa ngi wax ni ki nga xamante ni dafa bëgg kayit wala ki nga xamante ni day bëggante wala ki nga xamante ni njabooram dafa dañoo tasaaroo liggéey ban nga ciy liggéey ba nit ki mën cee gis boppam ci ñi nga xamante ni maanaam maanaam ci wàllu bëggante la waaye yu ñu la limal ñoom yëpp diñ koy liggéeyee waaye xam nga xam la te suñ doon yaatal fii day yomb mhm. waaye bari na yoo xamante ni mun nañ ko jaar si soble bi waaye dañ ciy wax yooyu rek parce que yeneen xam-xam mu ngi fi ñu duñ jël yëpp rek ñu tënk ko si si soble bi boobaa ñuy wax dañuy ñuy seetaan dañuy wax est que kii sax lu muy wax dëgg la mm-hmm. mais dañuy jël toujours rek dañuy jël ñett ñett ñett ñetti ñetti matières yoo xam ne moom la ñu génnee wala ñeent rek wax ko si soble bi li des ñu bàyyi ñu continuer waaye yii daal ñu limal suñ koy liggéey dañ koy faral lu ñuy ëpp luñ koy liggéeyee si soble bi lañ koy jaare te yàlla mu ñu si defal ndam am na ñoo xam ne ñoo leen dimbale fii si biir réew mi bañ tukki mel ni étudiants yi ñi dem Maroc wala ñu dem Canada wala yàlla dimbale nañ si ak ñi moodu moodu yi nga xam ne ñu ngi dem Europe képp koo xamante ni da déposé di ñaan visa wala dara boo déposé ba pare boo ñëwee incha allah bu ñu jëflanteeg yow yàlla dina def visa bi bu génnee cinq yi njëkk génnee yow ci bokk yàlla dina la suturaal Euh, sëriñ bi euh, ci soble bi euh, rek nga yem wala sëriñ bi am na leneen loo yeneen bagage yoo xamante ni sunu borom dénk na ko parce que ku ne Sénégal wax feebar yu bari impuissance sexuelle yi nga xamante ni moo fi am liggéeyante bi nga xamante ni moo fi am est-ce que sëriñ bi yàlla sunu borom may na ko ci loolu. waaw yemuñ ci soble bi rek dañuy liggéey yu bari. dañ koy liggéey lépp loo ñu wax rek ñu ngi doon doon mag yi lañ yor lu ñuy def nii ñun suñu baay mu ngi koy def ñu ngi koy ñaanal fan lu gudd ak wér gu yaram boo demee toog mu ngi koy def. ñun tamit ñu màggee jël relève bi suñu doom yi tamit bu ñu màggee si lii leen leen yar parce que ñun lii leen xam peut-être suñu wàccee yoon bi mun naa am ñu juum waaye yi nga lim noonu yëpp dañ koy liggéey koo xam ne dafa tële wala koo xamante ni dafa munta am doom jigéen boo xamante ni dafa taxaw munta am doom dañ koy faj ba mu wér ba ba am ba ba yàlla def mu jël biir góor gu munta am doom noonu la mel koo xamante ni dafa tële munul yàgg si jigéen pot bi sax mu ngi nee taaje dañ koy liggéey dañ koy dañ koy liggéey sunguf yooyu sunguf efficace lañ dañ koy faj traité ko ba mu jeex tàkk loolu moom amuñ si xel ñaar sëñ bi à loolu ci lan lay yëngatuwaat sëñ bi est-ce que tey jii mën na fekk koo xamante ni caabi daf koo féete ginnaaw sëñ bi jàppale ko ba caabi jooju ko féete woon ginnaaw daal ñu daal koy bàyyi wala sëñ bi day fekk nit koo xamante ni tey kenn xamu ko mu taal ko ba mu ni loolu yëpp diñ diñ koy liggéey kuñ tëj koso diñ diñ ciy jëflanteeg ay nit yàlla mu ngi ñuy dimbale am na koo xamante ni ku kuñ xamoon la fii sax ci réew mi ci réew mi ba léegi nii am na làmb bu mag boo xam ne moo ko tëgg jamono bu mu nekkee ci tolof tolof yi ñi ñu bëggoon a boole ak moom pour ñu dimbale ko waaye xam nga Sénégal fii rek nu mu demee ba mujj ñoo gisante waaye loolu ñu ngi koy def ñun lu bëri képp koo xam ne tamit dafa tëju boo ñëwee dañu xool say mbir xool fan la lay jaaree ñi ngi yor gàllaaj yoo xamante ni fekk yaa yor sa loxo fekk yaa ngi ko yore soit nga sangoo ko wala nga takk ko ñu defal la nga takk nit mënul si yow dara ñu ngi yor yoo xam ne tamit bu ñu la ko defalee mënoo toog te doo ubbeeku doo yor li nga bëgg yow da ko am bu fekkee da nga daan am 10 millions da am 100 millions bu fekkee da daan am 100 millions da nga am loolu moom ay càngat yoo xamante nii la amuñ ci amuñ ci neexal daal amuñ ci neexal noonu la mel kazalika dañuy defar tamit ay jaaru muy ñaari jaaru yi ñu ngi ko ñu ngi ko téye nii bii da koy takk si loxo càmmooy bi bii nga takk ko si loxo ndeyjoor bi ñaari jaaru yi bii fekk mu ngi sa loxo càmmooy bi bul tiit dara foo bëgg jaar jaaral foo bëgg dem demal képp koo xamante ni mu ngi lay jéem def dara day dëpp dal ci ginnaaw képp ku la jugal boo moytu da nga taxaw ci bàmmeelam nga ñaanal ko yàlla bii tamit fekk mu ngi sa loxo ndeyjoor bi ngay liggéey ñi ñi dañ la bëgg képp koo jox loxo rek dana la sopp dana la bëgg bu dee xaalis la nga koy laaj dana la ko jox mm-hmm. bu dee dafa am leneen loo koy laaj la ko jox mm-hmm. lépp bàyyi rek lépp mu ngi ci biir lépp loo xamante nii lu baax la pour nit rek mm-hmm. jaaro bi di nga tënk ci biir def ko ci di nga koy defar lu bari di ko yónnee fii ba bitim réew ak biir réew meeg fu nekk tubaab yi sax dem nañu ba di ñu koy jël si ñaari jaaro yi boo si mën a am rek sans départ ci yow boo taxawee ñun dañ la ko defaral ba alhamdulilah boo ko takkee yàlla dana la defal tawfeex sëriñ bi nga wax ñu ñaari jaaro yi nga ni ay mbir a ci nekk tey ku bu koo xamante ni tey bëggoon na ci jaaro yi naka lay def ba ba sëriñ bi jox ko ci parce que jaaro yi ma gis nii dafa mel ni jaaro ay jaaro yu baax la waaw jaaro yi moom boo ko bëggee da ngeen rek ñu waxtaan ak yow mm-hmm. suñu waxtaanee ba déggoo rek incha allah dañ la ko defal fépp foo mënta nekk ci àdduna bi dana la fekk foofu ba yegg foofu ci yow mm-hmm. waaw jaaro yi nag lu ci nekk liñ ci dëxañ dafa bëri mm-hmm. boo bëggee da ñuy wax sa tur boo ñu waxee sa tur ñun dañuy jël sa tur am es ak ko xool chiffres yi am lu ñu ci def am liggéey yu ñu ci liggéey xool sa biddiw bu ñu paree yooyu la ñuy tënk yëpp moo gis moo nekk ay chiffres yi yaa ngi dégg ñu def ko ci biir jaaro bi mu nekk kaaraange lii per bi boo ko dindi woon da gis ñu ngi ci ñu ngi ko lemaale ak ay téere yoo xamante ni daanaka nii yëpp noonu lañ koy defee ak am na ay karaw yu am ci biir per bi yoo xamante ni ay bayre la ak wërsëg lépp loo xamante ni daal nit mu ngi koy bëgg mu nekk lu baax rek dañ koy def ci jaaro bi yaa ngi dégg noonu la mel am na ay cangat yoo xam ne tamit boo ko laalee da ngay ubbeeku bu fekkee da ngaa tujj tamit am na ay cangat yoo xam ne day raxas sa yaram bi ba mu set wécc wécc wécc waaw loolu daal danañ ko gàttal waxaale ko noonu si si jaaro bi mhm. euh, sëriñ bi ñu gis ni Sénégal la ñu nekk politique gi euh, nit ñi ñi ngi ciy wax lu baree baree baree bari ba ci tournée bi nga xamante ni tournée économique président de la république ñu gis accident yi bari lool est-ce bi day yëngatu day day day xew nii sëriñ bi daf ko gisoon wala sëriñ day coow rek jàpp njàmburam noppi waaw yii yëpp dañ koy gis dañ koy seet ñun ñuy seet te bu ñu seetee damay wax ne faral di wax ne man bu ma lay seetal dinaa la wax loo xam ne sëriñ mosu la kaa wax ànd la rab bu la neex wala nga ànd ak jinne ji la neex man suma la seetee dama lay gis te li ma lay wax lu ma lay wax mënoo see dindi dara loolu yëpp gis nañ ko maanaam fi mu toll nii fi ñuy waxee yow nii ñun président bi li ñu ko gisal maanaam dootul neexle tëdd nelaw ba yàndoor gisatuñ ko mu am ci moom te tournée yooyu tournée yi muy def képp koo xamante ni oyof na si bopp rek da ciy des loolu moom amul sikki sàkk amul demal ma ñëw parce que ñun ay sëriñ lañ te fu ñu dëkkee si côté géej gi la léeg-léeg ay guddi dañuy dem ci géej gi di am ay liggéey def li ñu fay taseeg yoo xamante ni xam nañ ne ñii nii fu ñu jugee yaa ngi dégg ay borom doole lañ te loolu yëpp li ko waral mooy tournée yi ñuy def ay sarax yi ñu war a génnee wala yeneen parce que président bi nelawul Macky lu moo loo ko mun di waxal nelawul bu dee ay sarax mu ngi koy def lu mu munti neen ñu ngi koy def ñun ñu ngi ci xam dara waaye dafa nekk koo xamante ni dañ kaa jekku ba pare moom moom at yii nii dootu si neexle li ñuy wax neexle moom pare na ci ci ay tolof tolof rek su jugee si bii rek ñu dem si beneen su jugee si bii rek day dem si beneen moom bu yowoon nag préparé loolu noonu di ko wax nag ne jug si boppam jug si gouvernement bi ñun ñëpp suñu responsabilité mi ngi ci moom yaa ngi dégg bu fekkee ne am na sarax yoo xamante ni da kaa war a def ñu génn wax ko na ko génn def ak ku ko mun di wax na ko def ndax amul pertement sarax amul pertement génnee sarax nga génnee sarax loolu yaakaar naa amul benn pertement yaa ngi dégg su ko defee dina am jàmm bu ko deful li nga koy ragalal mooy bu jugee bés bu demee ba maanaam jeex fi Sénégal tamit tolof tolof yi da koy continuer di ko topp rek da koy continuer di topp moom ak ay njabootam. mais sëriñ bi tey li nga xamante ni mooy xew ci réew mi yéen bu ngeen noppee est-ce que tamit doona leen euh, responsable parce que lu ci mel ni accident yi di bari xale yi di lap ci géej gi dëkk bi euh, euh, demee boor est-ce que tamit yéen war ngeen war ngeen a noppi face à cette xam nga fii Sénégal moom dafa neex da gis koo xam ne ni day toog rek day xëy rek am connexion am rek toog lu ko neex mu wax nit ñi wax nañ ba sonn boo duggee tey ci internet bi ñaata sëriñ ñoo fa ne. Mm. wax nañ ba sonn nit ñi ñuy wax ba sonn boo waxee ñu bi dugg na fii génn na fii daan dara yow sëriñ boo xam ne yow mu toog di ko critiquer joxoo ko benn dërëm te mu ngi dund moo la gën a baax la fii fop lu mu bëgg mu ngi koy am ñun ñu ngi wax weer bu ne bët bu set ñaata sëriñ ngay gis ñu génn dañuy wax ci réew mi nañ def sarax bi nañ def lii waaye Sénégal moo moo neex neex goo xamante ni da ngay toog fi nga toog rek ngay toog yow di wax lu la neex li la neex gis nga kuy nelaw mun te yem ak koo xamante ni jug na sa 4 heures du matin loolu bokk wala nga tëdd di nelaw bañ yeela na la nga jug ñun am yow yaa fi gañal si nelaw yi loolu kenn gisugu ko moo tax ñiy wax ñoom ñoo yàqal ñi nga xamante ni di ñuy wax ne ñu ñu njëkk a yeewu mm-hmm. seen seen seen seen seen biir yi mooy yee mooy yee ñi nga xamante ni yeewooguñ waaye ñii toog ñii tamit nit ñi di wax rek ñuy wax mm-hmm. nañ dem ba si kanam lépp dana leer sëriñ yi lépp lu ñu fiy wax rek mm-hmm. yàllaa ngi def muy am parce que ñi caaxaanuñ ay jullit lañ ay doomu jullit lañ di ñuy jaamu yàlla di def lu baax su dara rek yàlla danañu rus si noonu waaw waaye ñun ñu ngi wax lu ñu xam yëpp ñu ngi koy wax waaye dëkk bi nag moo nekk dëkk boo xam ne yàq lañ gën a bëgg ci lu baax waaw boo fi waxoon léegi toox di woon balaa ngoon àdduna bi yëpp danañ la seetaan waaye yii boo ko waxee sax boo génnee di jàngale diine wala ngay wax sax duñ la seetaan far. Hmm. sëriñ yu bari lool mu bari ci ñoo xamante ni ay dóorkat lañ du samay wax nag parce que ñiy jëflanteel ñoo koy wax est-ce que sëriñ Daouda Seck mës naa jëflanteeg nit nit gisul boppam wala nit di ko euh, di taxaw ci internet bi di ko yàq loo xamante ni yeneen sëriñ ñi ngi waaw man nag damaa bokk si sëriñ yoo xam ne damay def sax boo ma defalee interview ba pare dama lay wax bul ma tëjal sama commentaire yi mm-hmm. loolu yaakaar naa ñëpp xam nañ ma si mm-hmm. képp koo xamante ni génn na si commentaire bi ne man mus naa lekk xaalisam rek na ma oo delloo ko ko mm-hmm. wala mu oo leen yéen ngeen oo ma ma delloo ko ko man loolu dama koy wax interview bu ma def dama koy wax si biir interview bi li nga wax noonu nag dëgg ju wér péng la bët bu seet dañuy jot fii ay appel bitim réew lekk seen xaalis di mujj fen waaye li ñuy wax mooy nit nit kuy wax kuy wax dëgg dafa neex a xam boo seetaanee nit ki bi wax rek da nga xam ne kii nii yaa ngi dégg lu muy wax lu mu maîtriser la waaye da ngay seetaan nit pour mu wax aaya alquran wala mu wax aaya bu baax wala bisimilahi rahmaani rahim bu baax sax mënu ko wala nga dem seet sëriñ salon bu mu lay teg sax da nga naan fii est que kër sëriñ la wala kër ministre la ah doo fa gis sax lu xeetoo ñi mën a wax ne kii sëriñ la yaa ngi dégg loolu moo tax te liggéey bi amul tey jii man lu ma neex laay wax fi kan moo may ban sëriñ mooy mooy ñëw na ma oh, attaqué ma dama kaay lu tax nga wax li wala dara kenn du wax kenn dara mm-hmm. loolu neex ngay def moo tax ñii ñaanlu mm-hmm. ñoom ñoo war a xool bu baax fi ñuy ñaanlu xool bu baax ñi ñuy jëflanteet mm-hmm. yaa ngi dégg soo xoolee nit ki nga seetaan ay vidéo boo fi dem mi ay vidéo yu bëri soo tapee internet da nga ko gis nga xool waxi 2018 am ah, wala waxi deux mille vingt am ak deux mille vingt et un lan mooy lan mooy différence bi ngay xam ne kii nii li muy wax tegu ko fenn man de sama vidéo yi ma mos a def yëpp boo ko seetaanee ak bi tay bii da nga xam ne man mu doon wax ba léegi maay wax wax ji amul lenn luñ ci kii wala nangam waaye métti na ñu ngi leen di masawu métti na diñ si am ay cas yu bëree bëri bëri bëri kenn xamul nu mu toll waaye di leen wax ñuy xool bu baax rek du xool bu baax rek parce que nit ñi moom léegi raglatuñu yàlla te xamuñ ne yàlla daf ñoo wax ñu dee mu ngi daw di jëm si ñun ñun ñi ngi daw jëm si ñoom ala kulli xaal danañ tasee yonent bi nee na al yawma amalun maa fi hisaab lakin bukra hisaabun wala amal nee na tey jëf la amut amut fay waaye suba fay la amut maay bu ma dem jëf de loolu sëriñ si nañ si bàyyi xel bu baax Euh, ñu gis ni euh, élection am na incha allah 2024 ki nga xamante ni moo di Sonko ak Macky Sall ak ñi nga xamante ni ñoo nekk opposant wu réew mi est-ce que sëriñ bi am na lu mu gis ci li nga xamante ni mooy fii ak 2024. turu Sonko moom ak turu Macky Sall turu Sonko fu mu fekk Macky Sall da fay fi xam-xam bii ñu xam ku xam lasraar loolu commencement turu Sonko bi rek 46 jours la Macky Sall commencement turam xaw ma 20 euh, la bokk bokkuñ ñoom ñaar bokkuñ turam yëpp boo ko xoolee tur benn. turu Sonko commencement turu Sonko da koy fay turu Sonko fu mu fekk turu Macky Sall da koy fay te kenn ku ne mbiru Sonko yii nii mbiru yàlla du mbiru nit képp ku taxaw fii tamit di wax waxi lu la neex naan dugg na fi génn fii dangay ngay mujj am gàcc rek yàlla moo ko may. gis nga Sénégal dañoo tàmm dama koy dama koy wax ci fara diggante Youssou Ndour ak Waly gars yi naan lu lu Youssou Ndour am Waly mënu ko am man leen kanaa da ngeen bëgg wax yàlla lu muy dafa jeex yàlla lu mu may mën na may Waly lu ko ëpp fuuf yàlla mayam du xaaj du jeex Macky sala nag nu mu defoon ba ñu koy néewal doole ci partem bi ba mu génn ba nekk président noonu la yàlla xoolee Sonko mu fekk Sonko di liggéey mu bëgg kaa toroxal dàq ko lu Sonko teg mu ne ko baaxut dàq ko bëgg kaa toroxal yàlla na kaa déet depuis boobu ba léegi lu mu def yàlla na ko déet man su ma doon moom damay taxaw ma xoolaat sama bopp ma teesi mbiri waaj yi mbiri yàlla la képp koo xamante ni soo si dugal sa loxo na nga wax lu baax boo si waxee lu bon bu ëllëgee da ngay am gàcc rek di lay yóbbu vaar rek foofu rek ngay mm-hmm. eh, ku ne eh, sëriñ ne làmb ndax yéen da ngeen di yëngatu ci wàllu làmb da ngeen gis loo xamante ni ñun duñ ko gis euh, samedi làmb war a am euh, stade euh, arène national waaye lu ko jiitu am na yeneen combat yoo xamante ni war na am Modou loo Modou Lo Ama Baldé Balla booy ñaa Niang boo Sène Bombardier yooyu yëpp doon ay làmb yoo xamante ni sëriñ bi xanaa du ñàkk mu gis ci dara. waaw alhamdulilah li nga wax noonu yëpp dëgg la li ñu siy yëngatu ñun suñu mbër bi sax waa mbër yoof bi xaw ma na ba pare xaw war naa bëree fan yi ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam. waaw war naa war naa bëre waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam mbëri làmb ji nag luñ ci luñ ciy wax comme li nga wax noonu dañ koy xool làmb bu jegee dañ koy xool am na làmb yoo xam ne dañ koy xool làmb ji passé xooloon nañ ko wax ci yëpp waaye combat yooyu nga wax noonu yii nii yii Modou bii nga wax ak Ama Balde bi combat boobu noonu <clears throat> à cent pour cent fi may waxee yow nii waa ji euh, ndam li mu ngi ci loxo Ama Baldé fu may waxee yow nii nag laa wax mais combat bi ñëwagut combat bi ñëwagut mun nañoo dem ba ci kanam waa ji day jug si boppam du toog moom loo ku ne xam na ko ku ne xam ne yaafus day jug si boppam du toog waaye combat bu jafe taxawal la. combat bu wax la après wax la bu ñu paree waat tamit wax la te promoteur biy tëgg combat bi bu deful attention bu combat bi paree dina am ay problème dina am ay jafe-jafe am ay jafe yu mag. combat bi nga xamante ni tamit moom moo jëm si moo bileen jëm si nii muy diggante Tyson ak Fara combat bu bu neex la ñu gis tamit te yàlla dana si def tawféex dana jeex si jàmm waaw comme ni ko nit ñi bëggee daal yàlla dana ko dana ko defee noonu waaw. Mhm. sëriñ bi lan mooy doon kàddu gu mujj gi ak lan ngay wax Sénégal yi ak sëriñ bi ku ko bëgg jot nan lay def ba ñëw ba ba egsi ci moom. waaw alhamdulilah di leen sant bu baax di leen gërëm ci opportunité bi ngeen ñu may. di wax ne képp koo xamante ni tamit da ngay def bac wala ngay def BFM wala examen bu mun di doon mhm. boo ñëwee incha allah buñ ci jëflanteeg yow yàlla dana la def taw dana ci def tawfiya mhm. te it am nañ xam ne comme nuñ ko waxee woon rek kiis gi ñëpp xam ko mhm. muy mag muy xale képp ku ko jël bu fekkee da ngay fàtte dootoo fàtte bu fekkee xale nga boo ko jëlee leçon bu duggee sa nopp benn yoon da nga koy mun bu fekkee mag la da ngay fàtte loo dégg dootoo ko fàtte examen yi tamit noonu la kasaalika képp kuñ ci jëflante yàlla dina def tawfiya li ñuy tëjee daal di wax ne dëkk bi yàlla na fi yàlla def jàmm di wax na nag élection yii ñu jëm si képp ku yaafus yaa ngi dégg da nga da ci da ci loru te it xale yi nga xam ne tamit ñi ngi loru si géej gi tamit ñu ngi koy métitlu bu baax di wax ne Macky Sall loolu responsabilité am la du responsabilité kenn xeer bu man bu ma doxee si mbedd bi sax xeer fakastal ma sax Macky Sall la parce que kenn fekk ko mu tëdd ñu ne ko kaay jël ñu teel ñu suñu réew mi moom moo jug di wër ne mën naa jox leen ma kon nag bu mu ñëw ba fii naan dugg na fii génn na fii na liggéey ñu ko wër ñoo koy nax rek waaye képp koo xamante ni bëgg ngaa nekk maire ñi ngi bay ñi ngi bayre boo xamante ni fépp foo taxaw wax bu fekkee leader nga da koy galaxndikoo fépp foo taxaw wax li nga wax dana dugg si nit ñi nit ñi danañ ko dégg te danañ jàpp te bu jour boobu da nga jour baa am ndam di wax tamit ñi ngi fii nii Yoff yaa ngi dégg ñi ngi ci ginnaaw Abdoulaye Diouf sar waaw ñu ci ginnaawam di wax ne incha allah dangeen ko ñaanal yàlla yàlla dimbale ko ba eh, mairie bi mu soxla muy mairie Dakar bi yàlla teg ko ci loxoom waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax moom xam na loolu bu baax a baax ñun tamit xam nañ lool di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa Yoff koñ bi ñu nekk yëpp wa axiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf sang bi